bi ak télévision Futurs Médias kon juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili si segeen ci xibaaru ngoon gi la ca gën a fës Bamba Fall àdduna ci convocation ca division des investigations criminelles euh, woolam googu nee na kon bosam ak bu keneen visé wul euh, kenn ku mooy Khalifa Sall ngir te ko nekk candidat loxo Ousmane Tanor Dieng ca loole lépp nag maire Medina ne takk na ca rip ñu leen di toppee lu jëm ci yàqalalu jàmbur ak tëkku fat bakkan Euh, des na dellusiwaat ca boobee déglu euh, foofee ca dikk euh, danañu ko dindi am déet malaanal kiir laay Barthélémy Diaz assemblée nationale gonte na kon sëgg ci lu ni mel ñu convoqué bureau ba ngir ñu wax immunité boobe naka la ñu cay doxalee ngir mën a jublu. ci atteem gannaaw ba ñu ko tuumaale eh, lu jëm kon ci mbir yi Ndiaga Diouf ci anam yamu eh, fato eh, l'enquête lañu ñu ca def lamu mu ci wàllu njàng mi moo di fii ci réew yu bari Afrique saw jant ak digg jàngalekat yi dañuy génn ak i lacune lamuy muy jur ñuy laam-laamee seenu ko xarañ ñu yokk ci di tàggat ay gone loole nag lañu ñu bëgg jubbanti liggéey yi xëy nañu ko tàmbali fii ci Ndakaaru Ngor daal nañuy jàpp ni dana am ci lu yàggatul poste de secours ci wàllu kon mën a taxawu ñi am jafe-jafe ci wàllu fay ñaar fukki million ak ñaar dana ca dugg juróom fukki maître nageur euh, tàggat nañu leen fële ca Marseille ngir mën a taxawu nit ñi suñu nekkee kon ci yi jafe-jafe ponk yaa ni stud ñu yaatal ko te lu rafetlu woon bi ak télévision Futur Média dañ koy tàmbali ak convocation euh, maire Médina Bamba Fall kon euh, fële ca division des investigations criminelles euh, ñu xëy kon may ko nopp ca la xewoon ca lu parti socialiste juróomi fan ci weeru mars fitna gëf jiboon di leen tumal yàqalalu jàmbur kon waaye it ay tëkku fat bakkan ab diir mu jàkkaarloo ko kon ak moom takk der yi naka la yëf ya demee ba mu génnee indi na caay leeral maam Biram Diouf ma nga foon maam Biram ñu ngi lay nuyu niñ ko waxee kon euh, moom maam Birame Diouf euh, ma nga woon foofee euh, ca buntu division des investigations criminelles Bamba Fall ñu may ko fa nopp la mu wax nag ba mu génnee bokk na ci daal la mu gis moo di ni wooloom googu ak yeneen yee ko jiitoog ya cay toftalu visé wul kenn ku dul Khalifa Sall kon meexu Ndakaaru ci boppam lañu bëgg jot ba tax na daal ngir fexe mu bañ a doon candidat lii lépp ca loolu moo waral ñu dugg ci Ousmane Tanor nag la gis ni loxoom ginnaaw niñ ko waxee maam Biram Diouf moom moo fa nekkoon maam Biram maam Birame kon déggante wuñu ci wàllu xibaar yi ak assemblée nationale euh, foofee ña nga ca wax jëm ci li nga xamante ni moom moo di kon euh, dindi malaanal kiirlaay ki nga xamante ni moom moo di kon Barthélemy Diaz euh, démb la ko njiital assemblée nationale doon wax moom Moustapha Niass ba waral ñu gonte ca kon waaye ndaje moomee à huis la ñoom ñoo daal di lëlu xool kon naka la ñuy doxalee ak lu ni mel gannaaw ba yoon jàppe ni ngir ñu mën a suux ci at Ndiaga Diouf euh, ma faatu woon kon foofee ca mairie bu Mermoz te ñu cay tudd Barthélémy euh, Diaz fokk ñu dindi immunité parlementaire ma laataa ñoo jublu kon ca boobee atte foofee dinañu fa fekk ji euh, Cheikh Tidiane Dione mu indi ci ay leeral ñu taxaw tëngee ca benn procès boo xamante ni moom xëyee nañu ko ndem sax dàqoon nañu ko diggante kon promoteur bii di Pala Meng ko ko fa nekkoon maire ak soxnaam moom Bal Dieye loole nag nag tribunal ba da ko mujj dàq terewul ca ñaari wàll ya euh, mobilisation amoon na dañuy dem ba Tëngéej Ousseynou Diop lañ fay fekki. ci teewaayu takk der yi nag lañu door lii di procès bi jëm ci diggante kii Palla Mbengue ak ki fi doonoon maire bu Rufisque Est di Balla Dieye gannaaw nag ñàkk gu wér gu yaramu kii di Balla Dieye lii di juge bi nag dàq na affaire bi ba ñaari fan ci weeru novembre wii di ñëw gannaaw bu mu ñëwoon défendre si lii di ay kili am maître El Hadji Diouf nag jàpp ne mbir mi amul benn solo te sax ñii dañoo war a juboo am na procès boo xam ne bu ñàkk xorom ñàkk solo tëngeej tëngeej du bëgg a toj dara jar ko fi benn terrain bu ndaw a ndaw a ay terrain ñoon séddale depuis temps Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm depuis 98 terrain yooyu ñu naan maa ko moom moomu ma ko terrain yoo xam ne jarul ñaar dërëm ah terrain yoo xam du titre foncier ñu ngi seet ba xam kan moo ko moom seulement li ci metti mooy li ñu tii tëj ay nit comme suma client te nit ci ci mbir mi maa moom kii ni yem maa moom ñu jàpp kenn ki tëj bàyyi kenn ki groupe bi kon groupe bi benn dëkk la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Rufisque dafa war a ànd nekk benn liggéey Rufisque jëm Rufisque jëm kanam. jamono jooju nag kii di Palla Mbengue ak ñoñom di rafetlu bu baax mobilisation bi nga xam ni wane nañ ko tey. lu mel nii mënoon na am te duma gis samay mbokk waaye jàpp naa ne dëgg moom ñu na nekk te danañu ànd ak dëgg du problème mu alal. du problème mu terrain maintenant donc problème mu personne la c'est un problème maintenant politique. Salimata bi ma jaay kii mooy Salimata Gueye bi nga xam ne original Salimata Gueye bi nga xam ne nag mooy bi ñu créé kon bii bokk ci Salimata Gueye est là. mu doon nag mbir moo xam ne mii mi ngi woy ñu koy waxtaane fii ci diwaanu Tëngéej ñu bëri nag jàpp ne politique da ko lal. Ousseynou Thiam kon la ñu na ca boobee te ñu xëy kon euh, mujj ko dàq ba àllarba ji ñuy dëgmal dellusiwaat ci déglu ko euh, maire bu Médina ca kanamu division des investigations criminelles gisee na ko ak takk der ya laaj ak tontu dox seen digg waaye loole lépp la mu ca gis moo di yoon wu ñu tëral ngir jot Barthélémy Diaz Mame Birame Diouf maa ngi leen ziar soxna ba mu génnee moom Bamba Fall euh, yan leeral la indi ci kanamu taskatu xibaar yi ci dégloom googu. waaw jërëjëf soxna Ngoné ni nga ko waxee noonu la xam nga Bamba Fall kon dafa jugee tey ci dikk ba gannaaw ba mu fa xëyee waaye daanaka digg bëccëg bi euh, lu jugee foofee euh, def nag dox jugee ci bërëb ba dem ca mairie am foofee mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi gannaaw ko ab plainte contre X koo xam ne nii direction parti socialiste déposé na ko ku ne plainte contre X nag mooy ana xam waaye moom nee na euh, laaj ak tontu yi dox ci digganteem ak enquêteur dig yi dafa gis ne daal plainte contre X boobee du plainte contre X maanaam dañ ko jëmale rek ci moom ak it gaayam maanaam ay Khalifa Sall ak it ña nga xam ñooy Barthélémy ak yeneen ndaw yi ànd ak euh, Khalifa Sall moo xam ci biir ADK mbala ci taxawu euh, Dakar ba noonee nag ñaawlu na Euh, convocation yooyu ak it xoxatal yooyu mu ne nag du leen lu dul ngir ñu tere Khalifa Sall candidature am ci élection njiit réew mi di ñëw loolee euh, bañ a antu tax na moom mu ngi dëggal ne noppi nañu sax euh, loolee nga xam ne moom la njiitu parti socialiste bëgg maanaam kon Euh, jëm leen euh, topp daal di leen sonal ñoom dinañ teg seen tànk ba seen i réunion sax noppi nañ dugg ba ci biir siège yu parti socialiste ko fay def ndax yow jàpp ba sax euh, ba tax na sax ñu joxoñ kii di Tanor Dieng ndax dañoo jàpp ni moom ma nga xam jamono ji moo jiite parti bi moo jiite lépp lépp lu am rek moom moo ko waral gannaaw kon ba mu xamee ni mënatul présenté wu candidature am ci élection présidentielle yi ñëw ndax jàpp na ni atam dina toll ci juróom-ñaar fukk ak benn bala sax mu ëpp ko juróom-ñaar fukk ak juróom ba tax na fu mu toll nii dafa bëgg a daal xañ jàmm kii di Khalifa Sall ngir mu mën fa àgg leneen Samba Fall xamle moomee nee na nag fu mu toll nii lu jëm ci plainte boobee ëllëg dikk mun na ko woowaat kon mu ngi taxaw saa su nekk rek di leen ni déglu lu jëm ci résultat yi nga xam nit parti socialiste jëbaloon na ko fa yii jëm ci seen ànd ak benn bokk yaakaar ci élection législative yi moom nee na daal àndul ak euh, résultat yi nga xam ne ni euh, Serigne Mbaye Thiam jébaloon na ko taskati xibaar yi ci ay bés yi ñu génn ndax nee na consultation yi def ca base ba euh, des na daal liggéey bu bëri goo xam ne nii saytuwuñu ko ba tax na moom àndu ci te it daal dinañ ko ñaawlu bu baax a baax a baax mu jeexalee rek ci mbirum maître Ousmane Ngom ma nga xam jamono ji afa créé mouvement am ànd ak njiitu réew Macky Sall mu ne xeram dafa tey dafa tiit sax ci lu jëm ci élection yi di ñëw moo xam législative mbala sax présidentielle ndax ci defaru carte d'électeur carte d'identité ak ci sax fichier bi ragal na daal moom maître Ousmane Ngom am lu mu ci jàppale ci nguur bi fi nekk ba ëllëg bu fekkee ni ndam day am ñu jël lépp fépp la ko ci nguur bi nga xam ne ni euh, moo fi nekk jamono jii ngërëm la bu baax ci leeral yooyu kon Mame Birame Diouf ni ñu ko waxee moom moo teewoon ci déclaration nga xamante ni def na ko ba mu génnee kon fële ca division des investigations criminelles la na ko mu dox wutali kon merem foofee jano moom Bamba Fall ak journaliste yi euh, ca déclaration boobee ak poñ mu ca doon euh, wax ñu jaajëfal ko ci euh, yooyee leeral del siwaat ci meneenum mbir nañ ko waxee député ya war a wax ci mbirum seen naataango bi di kon Barthélémy Diaz ak euh, lañ ko war a àttee ca Ndiaga Diouf ma faatu woon kon euh, ca mairie bu Mermoz mu ni kon dañu ko fa yebaloon euh, ngir mën a suux ci dossier bi yoon ni faaw ñu dindi mbalaanal kirlaayam loole nag député ya moom lañu ñu gonte xool naka lay demee ndax dindi nañ ko déet bañ nañ ko ba dañoo daal di lëlu ci seen biir Cheikh Tidiane Dione la ñu fay fekk ji kon ngir mu ni ci leeral Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné Ngom. Euh, Cheikh Tidiane euh, ndem sax xëy na euh, jotu leen ak séddee ci biir jot ngaa wut yenn ci xibaar ak ña jot a teew ñan nga gis foofee tey jii ci ndawi penc réew ma. bokk na ci kii di Abdou Mbow daanaka moom moo ñu yàggee benn xibaar ne mbir mi processus boo xam ne suñ moytul dina gudd ndax benn commission ad hoc boo xam ne lu toll ci fukk ak benn ci ay député ñoom ñoo war a seq boobule comité ad hoc donc pour mën a yëkkati li di euh, mbalaanu kiiraay député bi nga xam ne moom euh, moom moo mooy mi Diaz donc nekkul loo xam ne dina yomb niñ ko foogee mën na jël ay weeri weer gannaaw ba nga xamante ne euh, ñii di ministère de la justice wala boog waa parquet ñoom ñooy sàkku li ni mel am donc processus bi du yomb moom nag nee na bugg cee yëy yàb bi ndax jot nañu bind ay communiqué yoo xam ne dañ koy distribuer ci rédaction yi pour wan leen ne mbir mi daal tàmbali nañ ko ni nga ko waxee à ah la maanaam dañoo lëlu dara mënagul senn te kenn si ñoom buggul yëy yàbbi daal di wax ci mbir mi mais lañ ko mën a jàpp ngoone moom mooy comité ad hoc la ñuy taxawal jamono jii te lu toll ci fukk ak benn ci ay député ñoom ñoo ko war a séq ah, ngir nag ñu xool ndax dañu ndax nañ mën a ni lii di Euh, maanaam immunité parlementaire u député bi wala boog euh, du mën a nekk waaye daal jamono ji leen loolu rek lañ ci mën a jàpp li ñu ci mën a yokk daal moom mooy séance plénière su fekkee nañ yëkkati lii di mbalaanu kiiraay il faut daal ñu amal benn séance plénière boo xamante ne foofu nag député yi ñoom daañ ci euh, voté ñii suñu nangoo ne waaw su ñeneen ñi bañee ne déet ah, ci tënk daal ngoone loolu lañu ci mën a jàpp Cheikh Tidiane Dione ñu koy jaajëfal wee ci wàllu xibaar yi ak njàng mi ab enquête moo ko fesal euh, fii ci euh, dendub Afrique saw jant waaye it euh, Afrique digg gis nañu ni jàngalekat yu bari bu ñu noppee formation ba war a dugg ci kalaas yi day fekk ñoom ci seen bopp seenum njàng des bu fekkee nag dañoo tàmbali ñoom di forme ay nit loole day indil kay jafe-jafe loolu nag la ñu bëgg a jubbanti UNESCO dugal ci loxoom ak ñi di waa Talang fii ak joxante ab ngir dindi fii. yooyee lacune ci jàngalekat yi Aminata Bare kii xam-xamam màcc ci wàllu njàng mekk njàngale mi daal di wane ay présentation ci présentation yooyu nag mu xamle ni fii ci Afrique sowu jant ak Afrique centrale bëri na ci ay jàngalekat yoo xam ni dañ leen di jox ay classe waaye amuñu connaissance yi war ngir ñu jàngal xale yi. On a malheureusement constaté que le problème de qualité. de cet apprentissage là n'est pas seulement. malheureusement seetlu bi benn la dañu am jafe-jafe ci wàllu qualité ci njàng mi fi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu élèves yi ñi nga xam ne sax ñoo nekk enseignants yi maîtriser wuñ bu baax li nga xam ne moom it la ñuy jàngale bi ñu defee ab étude ci atum 2010 ak 2012 ca Tchad ak ci Guinée Bissau naka noonu ca Ouganda. xaw ma nag ci Sénégal waaye chiffres yi nag jàppuma ko bu baax waaye mun naa wax ne réalité bi benn la ndax dëkk yi ñoom ñoo yem ci wàllu jafe-jafe ci njàng mi. garantit que les réalités qu'on observe sont un peu partagées par les pays simplement à des degrés divers. liñ fi dajalee tey ji ci suba ñu ñëw indi woon ko doon ko présenté li muy wane rek mooy. ni ñuy tàggatee jàngalekat yi nga xam ni ëllëg dañoo war a dem ci classe yi am na lu bari lu ci des loolu nag foog xoolaat ko ngir bu ñu demee mën a tàggat bu baax tout tànk yi. loole li muy jur mooy xale yi su dee sax dañuy dugg école du tee dañuy am ay jafe-jafe yu rëy. les élèves sortent de l'enseignement sans avoir appris et c'est une réalité. élèves yi dañuy pare seen njàng te duñu am benn xam-xam loolu la ñu seeti ci dëkk yu bëree bëri ci at yu mujj yi gannaaw bu ñu defee ab étude te PASEC daal di koy def xale yi di génn école primaire ak niveau zéro. quittent le primaire sans avoir atteint le minimum de ce qu'on attend d'eux. au kuréel gi di réseau des éducateurs pour la transformation de l'enseignement apprentissage ne dafa bëgg a soppi doxalin bi fii ak 2030 ci dëkku Afrique yi. beaucoup de. jàngalekat yu bëri bu ñu pare seen tàggatu dañuy am nag ay jafe-jafe. ñu continuer li nu mel nag di liggéey loolu la ñuy sol nag xale yi moo tax. niveau bi nekk niveau zéro. maintenant qu'est-ce qui est mis en place pour remédier à ça. même bu fekkee sax formation yi nga xam ni dañ koy def seen diir dafa gàtt loolu foog ñu xoolaat bu baax. loolee waral ñu amal ndaje mi de ci ñetti fan daañu waxtaanee ci yan anam la war a gën a taxawalaat njàng meeg njàngale mi ngir ñi jàngale ak ñi ñuy jàngal ñu am école bu am qualité. yooyu manquement nag euh, nguur gi nee na lu dëggu la ñu ngi koy bàyyi xel kiy nekk euh, responsable ca fa ñuy euh, tàggatee kon yooyee jàngalekat waaye it communication direction ba ko yor nee na ñu ngi ciy jëm seen kem kattan ngir ñoom it féekup diir yokk xarañte ca yooyee enseignant ma ngi woo ci turu kon Aïssatou Léna Sène ñu teewlu ko. li ñuy sukkandiku pour tàggat enseignant yi pour ñu xarañ si jàngale bi fi mu ne nii. saa su ne ñu ngi seet nu nuñ ko nu nuñ ci gëstoo ba mu gën baax gën aw yoon gën dëppook li xale yi di soxla parce que nag soo formé enseignant suñuy def moyen ci éducation pour xale yi di réussir lañu tant que demuñu ba gis ni xale yi dañuy réussir ci 80 pour cent 90 pour cent pour ñun mbir mi doxul wala boog mën nañu def ay jéego supplémentaire donc jéego yooyu ñun moom la ñu seet lu ñu ko tegee su ngeen xoolee tey li xew ci secteur éducation càmbar bi ñuy càmbar enseignant yi bala ñuy dugg. niveau bi ñu leen di laaj bu ñuy dugg euh, moyens yi ñu siy def gëm naa ni fileeg 2030 waxuma ne sax mën nañ ko saafara waaye mën nañu raw ñu bare gannaaw njàng mi ñu wax euh, wàllu kon entreprise yi euh, jàpp nañu benn dispositif euh, bu bees daan nañ koy teg ci suba ak tey jii ñu ngi ko duppee couveuse d'entreprise bëgg yombal wàllug liggéey bi ci li nga xamante ni moom moo di kon micro entreprise am na nag yu ndaw yu ñu ca teg juróom-benn fukki entreprise ku ca ne ci ñoom teg nañu sa loxo million ak xaaj ñu jàpp ni loole dana tax entrepreneur yu ndaw yi mën a demal seen bopp waaye ci gunge gi it am na tàggat goo xamante ni danañu ko ca toftal première adjointe euh, maire euh, Ndakaaru moom moo ci indi ay leeral la di nii ñu teelu ko. entrepreneuriat social nag dafa di lu xew ci jamono waaye li ñu seetlu woon mooy entreprise yu bari bu ñu leen créer du ñu gudd fan daal. ñu ne nag comme que dañu bëgg nit ñi bu ñu amee seen benn idée de projet ñu mun ko réaliser mun ci liggéey mën a euh, téye seen entreprise comme ni ñuy téye entreprise ba mu ba mu dox ñu ne dañuy créer couveuse bi couveuse bi donc da ngay am sa idée de projet ñu jël la dañ lay sélectionner nag parce que du ñëpp ci mën a dugg bu ñu defee sélection yi ba tànn la ci couveuse bi dangay ñëw ci couveuse bi fi ngay nekk ñu lay jàngal gestion di lay jàngal nooy téye entreprise da nga fa def peut-être fukki weer ak ñaar boo paree nekk sa entrepreneur bu bopp moom nga mën a génn ci couveuse bi dem yore sa entreprise te doo am benn risque pour mu daanu li ñu sélectionné ci couveuse boobu 60 euh, personnes la mooy juróom benn fukk jeunes ak ay femmes yu ñu tànn xaalis bi moom mi ngi fi déjà. pour les 60 sélectionnés chaque aura 1 million 500. Euh, li nag mi nga am ci ndimbalal mairie bu Marseille ak association internationale des maires euh, francophones euh, kii moom bëgg a taxaw ci wàllu chômage nu mu delloo ginnaaw ñàkkum xëy ci ndaw ñi waaye it gënal dunduk askan wi président directeur général bu Mina distribution mooy wone yoon wi Papa Liggéey jàpp ni kon ku ca nete ji daf caa war a dugal sa loxo ngir Sénégal bokk ci réew yi gën a suqaliku fii ci dendub Afrique ci micro Cheikh Hassan Fall la waxee. société bi dama ko defar pour ñu suqali Sénégal ñu jaarale ko ci plan Sénégal émergent PSE président Macky Sall daf ñu wan yoon yoon bi mu ñu wan mooy na Sénégal développé wu ku nekk ci sa wàllu réew ci sa wàllu liggéey du moins da nga war a jóg au lieu ngay defar ay immeuble di ko louer di encaisser ay loyer nga def ko ci askan bi li nga am mais mu dellu tuuti la nga bokk ak nit ñi loolu lay dox ñi fi nekk ñëpp macha allah ak ñi nekk ci biti saa bu ñu ma xëyee fekk leen fi ñu taxaw di wut liggéey ak ñi nekk ci àll bi di liggéey ñëpp boo ko boolee man na six mille personnes. ñooñu ñëpp ku ci am sa salaire yóbbu ko sa sër sa kër da mën a dundal fukki nit boo ko boolee loolu lu baax la leneen li nga xam ne nag mooy. li neex Sénégal mooy nit ñi bu centrale électrique yi président di inauguré pare yëpp sotti réseau de distribution bi ñuy defar ñun yomb ku ku jotati sa courant da ngay kontaan parce que dootul cher loolu la ñuy dox te ñu bokk ñun ñëpp ci jàmm ak salaam. bu ma santé le premier ministre le gouvernement le ministre de l'industrie daf ñu dimbali ci yombalal terrain bi parce que. bi ñu koy jënd ci approche yi bi ñu ñëwee fii dañu newoon mais ñun lan la ñuy def fii parce que àll la mais àll bi tey moo mel nii te fit mooy indi lu mel nii parce que ay garab ak ay baobab lañ fi fekk lu ne fekk nañ ko fi ak ay ñax ak ndox muy taa ku gis loolu jënd terrain fit dëgg mooy tax nga eggale ko te lu ñu may fit mooy lan Sénégal jëm kanam ca Sénégal googee di jëm kanam wax nañ ci lu jëm ci wàllu autoroute ba ñu inauguré euh, ci altine ji kon euh, jëm ñaa ñaajo jàpp ja askan wi ñoom tey ji ñoom ñoo cay joxe euh, seen xalaat bu weesoo njëg yi ñu jàpp ni xëy na seer na am na yeneen yoo xamante ni bëggoon nañu ñu jubbantikoo ca yoon woowee suñu cay tegu reportage bu Cheikh Tidiane Thion léegi leer na njëkk li nga xam ne moom la ñuy fay ci tronson bi war a jógee Diamniadio daal di wutal wutali AIBD aéroport international Blaise Diagne lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk la mu nekk dogal goo xam ne gis-gis yi waroo la ci dawal ko tooto yi daal di amee 1600 dafa dafa baax na waaye aussi dafa cher dafa cher ba tey ndax aussi mënoon naa gën a mënoon naa gën a yomb quoi ndax doo xoolee nit ki du fay pour def à lu gaaw moo moo tax moo tax mu yéeg péage bi dafay quoi te yoon saay péage bi da nga si yéeg pour bëgg lu gaaw nga jaar si suuf sax mooy gën a gaaw ndax aussi dafay am embouteillage boo xamante ne nii de dafay day métti day métti quoi. 1600 pour ma àgg ba jas boobu moo gën a xéwale waaw moo gën a xéwale waaw. mooy fay 1500 après fayaat 500 mu nekk 2000. automobilistes si ñoom ñu ngi naqarlu yenn ci ay pratique yoo xam ne nee nañ daf leen naqar yi oto moom xam nga ku ku nekk ku yor sa oto moom bëggoom di paan di paan moom ba nga boo foo jóge moom dem mais xam nga tey oto bu na nga paan si oto bi fay 15000 francs camion nga fay 30000 francs te boo demee parking encore da ngay fay rapido yi waroon nañ ko mën a gën a yokk ba nga xamante nit ñi ku dikk maanaam loo dikkee da ngay jaar si fay sa rapido facilement nga jàll ndax euh, doo xoole depuis euh, diggante euh, Caaroy euh, Tëngéej bari gi kooku 400 francs kii 1000 francs dafa dafa dafa bari. suñ sukkandikoo ci seen kàddu yi ñoom ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable Eiffage yi ñu éviter yenn ci ay yoo xam ne jotoon nañ ko amal ci axe bu njëkk bi dox diggante Dakar ak Diamniadio. nekk ba yi mën nga fa am une heure temps pour fay gise bi jàll embouteillage dafay am seen gise yi doyut foofu diggante Caaroy moom mën nga fi am waxtu wala 30 gis gise problème. am na ci côté boo xam ne am na parking. waaw si côté fi ñuy fee foofu noonu am na fu am parking mais am na si foo xamante ne bii amul parking mu nekkee ci diggu autoroute bi la foofu amul parking. ndiki altine gi ñu génn président de la république moom mu ngi doon inauguré lii di prolongement autoroute à péage li ko dalee Diamniadio daal di ay AIBD ñii di kilifa yi nag ñoom li ñuy sàkk moom mooy daal di teg ay politique yoo xam ne dañuy gën a yombal dem bi ak dikk bi fii nii ci mim réew. wax nañ leen ko ci ndox ndorteelu xibaar yi Ngor dootul yàgg dana am ab poste de secours ñaar fukk ak ñaari million nag la ñu ca daal di dugal tàggat it euh, maître nageur yooyee ngir ñi nekk ci jafe-jafe ci biir ndox mi ñu mën leen wàllu loolee googee tàggat fële kon ca Marseille la ñu ko amalee euh, ndimbalal kon euh, ville bu France boobee moo waral lu ni mel ñu dellu si ci teg xeer wu jëkk wañ ci amal tey ji ak Papa Fara Ñing sauvetage yu mel nii dinañ faral di ko gis lu bëri ci waaxi ngor yi maître nageur bi bokk ci juróom fukk ndaw yi nga xam ne ñoom lañ yóbbu woon ca diwaanu Marseille di leen ci tàggat ngir nag di lap daal di ñàkk sa bakkan jeex ci plage bi nga xam ne nit ñu bëri dañ ciy ñëw. kontaan nañ ci trop parce que loolu moo tax peut euh, ñu ñu am résultat yu ñu am nii parce que ñu instant bi ay moniteur lañ te foofu la ñu demee ñu tàggat ñu war ñu nan la ñuy jàngalee nit ak yan méthode la ñuy defee sauvetage waaw def nañ fa 10 jours. am na formation accélérée la matin soir lañ def formation théorie ak pratique. extraordinaire bu yàlla dañu kontaan résultat yooyu moo moo feeñ fii rek. li ngeen fi gis yëpp loolu foofu lañ ko jàngee pratiquement. lu tolloog ñaar fukk ak ñaari millions ci sunuy koppar ñu dugal ko ci ngir taxal ab poste de secours loolu nag mairie Marseille jàppale ci maire bu Ngor. maire euh, Marseille moo ko chiffré ak maire Dakar ça tourne aux alentours de ay vingt et quelques millions plage a am bu euh, été bi ñëwee kon ay nit jóge fële ci Marseille ànd ak waa mairie Dakar ñëw defal ñu fi poste de secours ma nga xam ne ku fi am problème ci plage bi ñu mën la tàggat balaa ñu laa yóbbu hôpital loolu kon nag dañ ciy kontaan dañ ciy sawar. gannaaw juróom fukki ndaw yooyu ñu tàggat ci wàllu sauvetage waa Marseille ne dinañu woy di jàppale Ndakaaru ci yeneen bërëb. Ce commun entre la mer. Marseille ak Dakar daa am lu ñu bokk maanaam ay plage yu yaatu formation bi nag ñu def ci ay maître nageur dina tax nag wàllu lab gi di ñàkk sa bakkan mu wàññeeku te nag nekkul ci plage yi rek la ñuy yëngatu gannaaw teg nañu pose première pierre bi centre de secours bi Marseille dina wéy nag di dimbali ville bu Ndakaaru. Marseille va tegu xeer bu njëkk bi ñu amal ko ci waaxu ngor yi ci teewaay askan wi mu xumboon lool. ñam ak yéen fi kon ci xibaaru 19h30 20h incha allah rédaction bi dana dellu si ak Sara Cissé lay doon dellu jaajëfal leen ci teewlu bi ba ci kanam tuuti.